tënku pàccu téere yi kàddug ubbi 311 njàng yóbbu bi toppatoo wér-gu-yaram liggéey koom ndimbal ci wàllu yoon ci biir ci mbiri ci mbiru gàddaay euh, dëkkuwaay gisal say ambassade wala sa consulat mbiru mairie bi bu wàllu aji gàddaay yi LGBTQ plus tegtalu pexe bureau mairie bi ngir dàkkal ngir dàkkal fitnaal jigéen ak nit ci tànneefu awraam commission wu àq ak yelleefu doomu aadama bu dëkku New York néegu téere publique yi